aí một bên này cùng tay bên này thì này xuống mình này Jaja Fete Jaja Fete Jaja Fete sama gars Mr Sheikh lah depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon de ñëw defal leen benn live live de day um, du gudd wax ci affaire Adji Sarr bi nga xam ne euh, dañ ko gis mu dem ci Mahi Niass c'est confirmé gis naa benn article Adji Sarr dem na ci Mahi Niass li tax mu dem ci Mahi xam nañ ko Serigne Mahi Niass mooy ne dafa bëgg dindi plainte am gis nañ Adji Sarr mu ànd ak Fa Birama Sarr Fa Birama Sarr mooy papay Adji Sarr papay Adji Sarr jaajëf euh, Kaniman euh, tey dama leen bëgg defar rek benn laay bu gàtt ci Adji Sarr bi nga xam ne dafay dañu wax ni dafay retirer plainte am te loolu lay nduru ndax ñun mënuñu comprendre Pa Birame Sarr solu solu ñaseen comme Sonko lu mu sol mbaxane bu mu sol solu ñaseen dem kër ñaseen ba mu demee gars yi dañ ko recevoir en catimini maanaam gars yi da ngeen di laaj ba lu duggee da ngeen di laaj bëgg naa wax tuuti ci Mollah Morgun aussi mi nga xam ne dafa génn mu ne bu jotaatee xaalis da koy lekk voilà jëfuru na nee na bu jotaatee xaalis da koy lekk sama chiffre bango 44 gën leen laaj tey live bi du gudd damay ñëw rek dafa leen benn live bu gàtt wax ne Adji Sarr dafa jaaxle waxoon naa leen Adji Sarr euh, gars yi dañ ko abandonné euh, Abdou Nguer moo njëkk génn mu ne Adji Sarr dañ ko abandonné daf koy retiré daf koy retiré loolu la loolu la loolu la ñu loolu la ñu njot waa ñeseen yi nag ñu ngi weddi ñu ngi bind ñu ne en tout cas recevoir nañu aji Sarr waaye sëriñ bi ba mu ko recevoir dafa wax rek ne aji Sarr nu mu tudd ci ah, dañ ko recevoir parce que taalibe la waaye ñoom ñu yokk ci ñu ne waaye ñun waxuñu ko mu euh, retirer plainte wala waaye nag bu retirer plainte bi ah loolu ci affaire la il faut savoir lire entre les lignes Adji Sarr dem na ci Mahi Niass loolu lan lay wane mooy ne Adji Sarr gouvernement bi yoratuñ ko le gouvernement a perdu le contrôle de Adji Sarr je ne peux pas dire qu'ils ont perdu le contrôle de Adji Sarr dañu abandonné Adji Sarr Mollah Morgan mooy ñuy gëmloo di wax ni ci kër tubaab la nekk ak dugg na fi génn fii mais Gabriel kan ci boppam nee na Adji Sarr day waaj a dof parce que dañ ko abandonné Maty trois pommes buy wax ak Adji Sarr dootu sax tudd turam l' accusatrice la koy wax l' accusatrice la fille tegal naa leen vidéo barki démb la lay wax buggul sax jaar ci tur Adji Sarr l' accusatrice la fille gis nga waa APR dañoo jombi tey ñu yeewu maître Seye maître Seye gën na àdduna maître Seye gën na àdduna ah, yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu maître Seye ku ko xool xam ne du woon mag noonu il respirait la forme mi ngi ay xaalis mu du jeex mënoon a dem France mu faj ko waaye gis nga yàlla buy jël sa bakkan du la tàggu xam nga une mort subite gars yi dañ ne un malaise la te kooku mooy kan mooy porte parole Benno Bokk Yaakaar mooy kii waxal benn Bokk Yaakaar kii waxal benn Bokk Yaakaar tey génn na àdduna lii misaal la pour wan Macky Sall ne gis ngeen ak ñii ànd ak Macky Sall xam ne ëllëg ci biir. lépp loo leen def di ngeen koy layoog yalla gaay yi laaj leen gën leen laaj gën leen partager te benn laaj bu gàtt laa leen defal bu intense li ñu wax ci Adji Sarr léegi mais ni ñu wax ci maître Sèye génnu adduna bi gaay yi laaj leen yéen tamit bo leen duggee da ngeen di laaj génn adduna bi daf leen war a yee waa Macky Sall war a yee juge yi Ousmane Sonko génn na tey def conférence de presse wax leen ne juge yi bu yóbba ngeen ragal yàlla te xam ne atte yàlla yàgg-yàgg day ñëw maître Sèye anamu tey mi ngi ci bàmmeelam moom kese amul kenn milliards yu mu yu mu yor du ko dimbali dara du ko dimbali yàlla na ko yàlla yërëm ñun du ñu lu deewu kenn mais lii misaal la rek pour wan ne misaal la pour wan ne pour wan ne àdduna dara du fi sax mais gars yi balaa nee naa la laaj bi du gudd dama leen bëgg wax rek ne Adji Sarr waxoon nañ leen ne dañ koy waaj a génnee Abdou ngeen ne lekkatul naanatul gouvernement bi daf ko abandonné léegi nag lu ko gouvernement abandonné ci ni ma ko jàngatee moo tax nag mu jaaxle mu woo papam nit ki boo xamatul foo jëm da ngay dellu fu nga jóge fan la jóge si Fabirama Sarr Fabirama Sarr tamit xam naa ne xool na ut lekkukaay ut lekkukaay amatul lu muy lekk mu ne kon naa jéem a récupérer sama doom balaa ëllëg ci biir ñu may rey di rey sama doom bu demee ci sëñ bi nag sëñ bi ne ko mu ne baalu àq damay retirer plainte loolu aussi mën na nekk ruse mën na nekk ruse pour Mamour Diallo récupérer ko ndax Mamour Diallo bu dégglee déggee wala Macky Sall dégg ñu ne Adji nee na dafay récupérer dafay retirer plainte bi loolu bi dinañ ko woowaat ne ko bu retirer bu retirer wala ñu ne ko retirer mais pour man dañuy day retirer xam lu tax muy retirer parce que Macky Sall affaire Mame Mbaye ci la ci la ko basé ci affaire Mame Mbaye la basé moo tax gis nga na Sonko waxatul sax waxu Adji Sarr terminus la wax moo laa moon gën déglu leen ko li mu wax nee na bu jotaatee xaalis day lekk déglu leen déglu bu jotaatee xaalis day lekk nee na déglu leen ko déglu rek dégg dégg déglu leen rek nee na bu jotaatee xaalis day lekk déglu leen rek dégg ngeen waaw dégg nga waaw dégg nga dégg nga dégg nga su di saaga sénégalais dépression moo waaw dégg nga dégg jox ci neige bi <laughs> waaw léegi moo laa da saaga di saaga sëriñ sëriñ dégg nga sëñ Moustapha Dramé lay saaga dégg nga sëñ Moustapha Dramé sëñ Moustapha lay saaga nii dégg nga dégg nga wax leen ma turu sëriñ sëñ moo Moustapha Dramé dafa ne moo laa moo taal këram déglu leen rek après damay ñëwaat ci Adji Sarr dégg nga num ñuy saaga moo la dépression dégg nga dégg nga dégg te moom moo fi lépp moo ko def ba pare mu ñëw di ñu saaga dégg nga non il faut ñu seetaat moo laa ñu koy seetaat pour wan ne Sonko ku ko songu sànku déglu leen rek déglu leen dégg ngeen Moustapha Dramé voilà foofu foofu foofu nañ yemale foofu parce que tamit sama laaj bëgguma mu nekk ci kese mais gars yi nañ ñëwaat ci affaire Adji Sarr Adji Sarr gis nañ ko ci oto bi Adji Sarr gis nañ ko mu sol yére olof papam Fapal Birame Sarr gis nañ ko mu sol koppati ñu ne day dem euh, euh, euh, koppati ñaseen Adji Sarr six secondes waxul deful dara parce que fi mu nekk nii dañoo jaaxle vidéo bu fekkee ne yow amuloo looy nëbb da ngay def vidéo bu bu bu gën a gudd boobu lu tax amul benn image amul photo parce que secret la sëñ Mahi Niass benn intérêt rek la am pour recevoir Adji Sarr mooy mu defaraat image parce que sëñ Mahi Niass su mu toog dafa naan gars yi dañ koy saaga dañ koy saaga dañ koy saaga kon moom bu fekkoon ne moom moo mën a ñëpp xam nañ ne moom rôle am mooy dem ay ay Nigéria dem ay fune ngir indi jàmm kon tey bu woowee Adji Sarr loolu rek la ko war a mën a doyee mooy dindi sa plainte comprendre léegi nag Adji Sarr da tax muy nangu loolu mooy ne Adji Sarr yi joxatuñ ko xaalis joxatuñ ko mu lekk joxatuñ ko mu naan moo laa moo gën gis ngeen ko fen la mën fen la mën kii génn ne bu jotaatee xaalis dama koy lekk moo laa nee na bu ma jotaatee xaalis dama koy lekk kon moom jot na am na lu mu jot kon moo laa bu ñu bëggee gëmloo ne Adji Sarr mi ngi ci kër tubaab loolu c'est pas vrai Adji bu nekkoon ci loxo nguur gi duñ ko bàyyi mu ànd ak papam moom kese amul benn garde bib bu ko àndal ñu bàyyi ko muy tamambalu boo gisee mu ànd ak papam filmé six secondes dugal ko ci internet bi c'est parce que bip bip garde bi ñu koy garde yëpp xëy na pour pour euh, euh, euh, bañ mu génn dañ koy gunge rek pour bañ mu daw dem ci MC Niass wala mu dem wala mu dem wala mu dem feneen voilà kon nag man li ma leen di wax rek gars yi live bi bëgguma mu gàtt bëgguma mu gudd lii dinaa ci defaat beneen vidéo gën leen expliquer li ma bëgg wax mais dama leen bëggoon defal beneen live rek pour wax leen breaking news Aji tu ci ci la pour pour retirer plainte mais plainte retirer pour nga retirer terminus le Ousmane Sonko wax ci terminus Macky Sall juge Ahmad Si, beaucoup ko waroon atte bañ na ko Thiès juge affecté comprendre ce loolu Sonko wax na ci conférence de presse bu c'est muy ñuy di sénégalais di moom li ko dal moom moo boppam la ko def comprendre nee na nag mois de mars dina génne ay audio mais audio yi muy wax ne da koy génnee yëpp chantage la lu tax génnewu ko ba léegi day day bëgg gars yi woo ko jox ko xaalis ne ko bul génne bu ko gars yi joxul xaalis nag suñu marché bi le 14 ak euh, euh, ak ak le 15 moom la moo laa ndara yàq ndax dafa ndara bàyyi ba Sonko ndara def méga giga meeting am yorewaat buzz bi marché yi am buzz bu gisee ne Sénégal mi ngi waaj a bax ci lay doog a génne ay audio Mollah liggéeykat la Mollah dafa dugg dóor ci audio yi mu am pour am xaalis dégg ngeen ko bu ma jotaatee xaalis damay lekk loolu waa APR lay waxal jox leen ma xaalis ma noppi voilà mais Adji Sarr moom sànku na Adji Sarr yàqu na dafay retirer plainte bi loolu la ñu bind man maa ko liir léegi ñu bind ko ñaseen yi nag nee nañ effectivement recevoir nañ recevoir na euh, euh, euh, ils ont reçu sëriñ bi recevoir na Adji Sarr ñoom loolu confirmé nañ ko man maa ko lire ñu ne ñu ne na nañ ne recevoir na Adji Sarr seulement waxuñu ni dañ ko affaire taalibe daal ak sëriñam la ko la ko mais bien sûr ñoom duñu wax lépp duñu wax lépp il faut savoir lire entre les lignes weddi bi ñu weddi moo leen dugal parce que dañ ne ñun waxuñu kenn mu retiré plainte am waaye bu retiré plainte am ah loolu ñun suñu yoon nekk ci bu retiré plainte am loolu suñu yoon dëgg kon ñoom gouvernement Macky Sall ils sont prêts ñu li tax ñu bàyyi Adji saar mu dem ñu génne image ñu génne information bi ñoom loolu lañu ñu bëgg dañu dañ cee bëgg raxasu ba mu set wet léegi nag ñu jéem a condamné Sonko ci affaire Mame Mbaye Niang te loolu waa Sénégal xanaa ñàkku leen fay def ba seetaan Macky Sall mi nga xam ne nee na xale yi un weer weer ak la leen jox pour ñu bindu xale yi am 18 pour mën a voté weer rek la leen jox te ñoom Ousmane Sonko nee na juróom benn weer la ko waroon def kon nag gars yi ñoo war a yéen waa Sénégal yéen a war a génn ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen fippu xam nga ngeen marche Macky Sall Sonko nag nee na Macky Sall dootu ko may dara loolu nag ko Sonko jëfee boo ko deful Macky Sall dina leen sànq ñun nag li ñu mën a def rek mooy sensibiliser ñun xeexuñu suñu bopp gis ngeen ñun bu ñu ñëwee Sénégal dañuy jàpp dañuy tëj prison yu bon yooyu mais gis ngeen ñun ñu ngi ci jàmm mais bu ñu neexoon ñu noppi mais yéen ñu yërëm te ñun xam nañ ne waa Sénégal doo leen ñàkk fayda seetaan Macky Sall ah di leen massacré Ousmane Sonko wax naa ak yi wax naa euh, nu mu tudd ci euh, magistrats yi surtout policiers yi xanaa doo leen fi nekk di di di si cette population gars yi monsieur Cheikh la laaj bu ndaw laa bëggoon def sama batterie sax léegi mu jeex ah, mais dinaa ci defaat beneen vidéo bi ci kanamee wala suba pour gën leen expliquer ne Adji Sarr dafay retiré plainte am moo laa moo tax nee na da koy lekk kon loogi loolu yëpp leer na jëfuru na il a fait un lapsus jëfuru na kon nag euh, ñu ngi leen di euh, wax ngeen topp ñu samedi incha allah ci laay def live tey sax ndar moon def live mais il fallait que ma wax ci bii mais samedi incha allah dinaa def live une heure de temps damay génn parce que bato bu ma nekk aw ma droit sax def live waaw like leen partagé leen abonné leen ba beneen ñu defal leen vidéo gars yi merci merci beaucoup gars